jërëjëf mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla bu baax ah, ci bi nu yàlla mayee ñu fekke ko daaw yàlla ci mbaaxam kàttanam du ba nu fekkewaat ko ren yàlla nañ ko fekkewaat ay déwén te nu ànd koog ñun ñëpp kenn bañ cee manqué daaw ñëw nan fi ànd ceeg Abdou Aziz ci liggéey bi waaye ren dafa gën a def ay jéego macha allah ndax ku fi ñëw daaw ñëwaat fi ren di nga xam ne ñaqal waaju baax moom njëriñ ndax gis nañ ni Abdou Aziz li mu daan génne di ko jox mbokku taalibe yi tey jii dafa yokk kon ku nekkal yàlla yàlla nekkal la ñuy ñaan yàlla yàlla na ko muurloo képp kum ci jox bu déwénee yàlla na yéene ji mu am mu jox ci lu kawe njottam ndax jom jaa ngi fi pas-pas baa ngi fi te volonté baa ngi fi Abdou Aziz ñu bàyyi la ak ñu lay seetaan mais li ñu njëkk a def mooy jaajëfal la ci engagement yi nga xam ne jëloon nga ko daaw te yàlla kàttanal la ba nga yëgal ko ren waaw aouzu billahi min asheytaani rajim maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm nag suma ay waajur bu baax a baax di nuyu suñu sëriñ suñu xalif général sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér yàlla kattanal ko di nuyu nag njabootu Seydi Hadji Malick yëpp di nuyu tam umma islamique bi yëpp di leen ziar di leen nuyu di leen sant di leen tafajal Abdou ñu gis jëf yi euh, ku fi ñëw daaw ñëw fi ren xam ne euh, li nga ci doon ñaan mooy barkeel suñu borom def na ko ci boo dee jëf-jëf ju toll nii nan lay mel ci yow waaw alhamdulilahi rabbil alamin xam nga gàmm ñun amuñu lu ko gën a rëy hmm. bi ci des mooy ñun amuñu lu gën a rëy Tiwaawan hmm. bi ci des ñun amuñu lu gën a rëy Seydil Hadji Malick te li ñu nampatal ci Seydil Hadji Malick jaarale ko ci suma wasila bu baax ba muy Sëriñ Abdoul Aziz Al Amin hmm. mooy su gàmm jotee ñu jël ko def ko defin woo xam ne nii dañ ci wut ngërëmu rek waaye yàlla bu mel ni Seydil Hadji Malick ba nga xam ne bu gàmmu jotee ñun dañuy bàyyi suñu yitte yëpp bàyyi suñu activité yëpp jël congé ñëw Tiwaawan def fi lu mat weer wala ñaar fukki fan ngir liggéeyal Seydi Hadji Malick ci liggéey bi nga xam ne daf ko woote woon Seydi Hadji yi nag yéen ñëpp xam ngeen ne li mu woote weesuwul gàmmu weesuwul mooy màggal guddi yonent bi sallallahu ah ñu bëgg a nekk ay taalibeem ba tax na ñuy roy ci lim fi bàyyi fas yéene dundal gàmm gi moo tax bu gàmmu jotee dañuy bàyyi suñu yitte bàyyi suñu àdduna yëpp bàyyi suñu lépp lu ñu yaakaar ni gàmmoo ko gën dañ koy bàyyi topp ci moo tax su gàmmu jotee ñu ñëw fii ci Tivaouane jël suñu ay moyens jël suñu jot suñu yitte yëpp indi ko Tivaouane ngir déggal Seydil Hadji Malick ci la mu woote woon loolu moom li ci gën a am solo yaakaar naa ne looloo tax li ngeen fii gis ngeen ko fii gis def bi ñu koy def nag saa su ne ngir ganu Tivaouane yi bu ñu ñëwee fii am mbégte dañ ci amoon ndigal ci suñu sëriñ suñu la sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mhm. ba bu jotee dootuñu ànd ak suñu sago mhm. waaye li ñuy ñàkk ànd ak suñu sago yëpp la ma daan wax rek laay wax ñuy ñaan yàlla ci mbaaxam ci kàttanam ba mhm. lii ñuy def Tiwaawan yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla nañ ci gis yàllay kese te yàlla buñ ci ndamu yàlla buñ ci bàkku yàlla buñ ci gis daray àddina te li ma ciy faral di wax rek mooy lépp loo xam ne yiw la ak yool la te ñu am ko ci yàlla nañ ko bokk ak jullit ñëpp yàlla nañ ko bokk ak umma bi yëpp mhm. lii ñuy def dañ ko war a def di ko def rek mhm. bëgg itam yàlla nangul ñu ko te su ko nangoo yàlla nañ ko séddale Sénégal yëpp mhm. loolu gëm naa ni moo ci gën a am solo ginnaaw teraanga bi ngay def dañ ci gis aspect social mooy fi ñu taxaw léegi gis naa ku ñëw ne la a Aziz jërëjëf ndax ren yaa tax ñu gaaw mooy gën ginnaaw teraanga yi ngay jox sëriñ si gis nañu les les populations les maanaam les plus démunis yaa ngi leen dimbali di leen teraanga waaw xam nga man moom ci sama kàddu saa su ne waxoon naa ko daaw dama koy waxaat man taalibe Seydil Hadji Malick laa bëgg a doon su ma bëggee nekk taalibe Seydil Hadji Malick nag dama bëgg a nekk taalibe boo xam ne dafay utile à sa communauté ginnaaw bu ma utile ama communauté nag dama bëgg a utile à umma islamique bi yëpp su ma gëmee ni war naa mun a def lu baax ma góor góorgóorlu ci rek gëw ma ne sax li may def ndax lu baax la ndax bëgguma jéggi suma bopp waaye maa ngi am yaakaar ni yàlla ma yàlla nangul suma taalibe ak Seydi Xaaji Maalik lu ci des amul solo li nga gis ñu ko fi def xëy na yàlla moo ko fi ganasil rek muy ay xéwal yoo xam ne dañ ko war a bokk ak jullit te suñ ko waree bokk ak ñoom dañ leen ko war a jox yàlla moo ko jaarale suñu loxo ñoom ñu war ci jot ñuy ñaan yàlla rek yàlla mi ko jaarale suñu loxo yàlla buñ ci def dara lu ko ci naqari ba tax na ñu ciy góor góorgóorlu rek di ci nab nab yi comme ni ko suñu sëriñ yi di waxee di ñaan yàlla nangul ñu ko waaye ginnaaw doole ji gis nañu koor yi ci ñëw fii tey euh, di ay gani Tiwaawan mm-hmm. mooy corps médical bi mm-hmm. armée police gendarmerie préfet ñoom ñëpp yaa leen di jox ay berne ak i xéwal ndax ay gani Tiwaawan lañ waaw loolu ba tey loolu ñuy def rek dañ koy jiwalaat rek di ko jàppale suñu sëriñ li ñu def lépp orientation la rek boo xam ni mm-hmm. suñu turandoo suñu sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yàlla nañ ko yàlla fayal moo ñu ko joxoon moom moo ñuy jox orientation daal ñu wax ni ñii ñëw Tiwaawan kat bëgg naa bu ñu ñëwee ñu teral leen lu mel ni police gendarmerie sapeur pompier ak hôpital yi fi nekk ak néew di joole yi fi nekk ak daara yi fi nekk ak mbokk taalibe yi fi nekk nañu xool ku ci ne rek loo leen tànnee nga jàppale leen ko moo tax ñu ciy góorgóorlu ba ku ci nekk rek dañu yaakaar ni boo ñëwee Tiwaawan ci suñu gëm-gëm ñun dañu yaakaar ni ñun ñoo la war a dalal ñoo la war a teeru ñoo la war a berndeel ñoo la war a dalal ba sa xel dal ba tax na ñu ciy sonn coono yi yëpp daal jubluwuñ ci lu dul ngërëmu suñu borom jaarale ko nag ci mag mu baax muy Seydil Hadji Malick ñu dégg léegi ci kàddu Serigne Moustapha Alami mhm. mu wax sa diggante way juróom di sa way jur dem ba ni defal nga ko lu ko doom defal mhm. nan nga mën a dégg waaw Serigne Abdou moom comme ni ko ñëpp xamee man dama amoon ak moom benn relation bu particulière Serigne Abdou bàyyi la woon ci man maam la woon ci man Serigne la woon xarit la woon confident la woon boobu mayoon na ma ci boppam nag lu raar loo xam ni ñu bari xam nañ ko loo xam ni jafe woon na sëriñ Abdou bu nit sañee wax ni man defal na ma lu mu defalul kenn sañ naa ko wax ku wéet ak moom rek yaakaar ne lim la defal defalu ko kenn waaye man gëm naa ni sëriñ Abdou ci sama dund parti def na ci participation boo xam ni lim ma defal man mënalu ko mënalu ma ko sama bopp souvent dama koy wax man sëriñ Abdoul Aziz Al Amin moo jox suma baay werd moo ko jox suma yaay man moo ma ko jox werdu salaatul fatiha moom moom ma ko jox jox ko suma baay jox ko suma yaay donc loolu ak yeneen mbir yoo xam ne mënuma toog di ko nettali wala di ko wax waaye man gëm naa ni sama dund sëriñ Abdoul Aziz Al Amin defal na ma ci loo xam ni man mënaluma ko sama bopp kon boobu sama digganteeg moom duma ci xuus trop waaye ku ne xam na relation yi ma amoon ak moom. ba tey génnuñ ci aspect social bi gis nañ ni samp nga ay waañ tam lan moo la motivé ba tax nga def loolu. waaw waañ yi bari na trop vraiment samp nañ ay waañ yoo xam ni bëgguñu sax di ko tudd dañuy woo ñu yor waañ yi la la ñu soxlawoo ci wàllu <clears throat> togg pour berndeel gan yi ñëw tuyaawoon ñu jox leen ko ndax fii ñi fiy ñëw ñëpp dañu ñëw pour ut yàlla ut yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñëpp xam nañ ni nag <clears throat> jamono bi dafa xaw a metti tuuti ah. jamono bi dafa xaw a jafe am na ñu bari ñoo xam ni tey ñu ngi doon liggéey perte nañ seen ay liggéey dund bi cher na trop revenu yu ñu amoon permettre leen li ñu bëgg a def ñu def ko kon boog am na ñoo xam ne su leen yàlla dimbalee mën a leen gan nañuy gestu rek ñi nga xam ni wax dëgg yàlla jamono daf leen xaw a dab ndax àdduna lépp situation la tey Abdoul Aziz yàlla mën na ko suturaal ëllëg situation tam mën na am yàlla na ko yàlla bu ko yàlla dogal waaye jamono moo tëdde noonu man dama gëm ni képp koo xam ne nii tey citoyen nga da nga war a nekk un citoyen utile un fexe ba bu la yàlla dénkee dara nga mën ci dimbali nit ñi nga jéem leen ci taxaw rek ngir wut ci yàlla te bañ cee wut dara ndax souvent man dama koy faral di wax li ñuy def na yàlla kese tax ñun comme sama discours tous les jours la man je ne suis pas un politicien man li ma wax li ma bëgg doon lenn rek laa bëgg a doon muy taalibi Seydi Hadji Malick wallahi man bëgguma nekk président de la république ndax mënu ma ko doon aw ma les capacités mënu ko xëccoo bëgguma nekk député bëgguma nekk ministre bëgguma nekk maire man su may nekk bu ma amee post bu may xëcc ci àdduna mooy nekk taalibe Seydi Hadji Malick mm-hmm. te bu ma bëggee nekk taalibe Seydi Hadji Malick dama jéem damay jéem a nekk taalibe bu utile boo xam ni dafay amal njariñ communauté mm-hmm. ndax communauté dafay am boo xam ni ku ci nekk rek borom xam-xam yi borom wërsëg yi borom xalaat yi loolu mooy composé communauté kon boo communauté bi ñu bokk dañ ko war a taxaw muy communauté tijaaniya mm-hmm. jaare ko nag ci Seydi Hadji Malick kon wax dëgg yàlla man sama ñaan yëpp ci àdduna mooy yàlla na ma yàlla nangul sama taalibe Seydil Hadji Malick mhm. te su ma ko nangulee tam yàlla naa ko bokk ak ñëpp incha allah ren gàmmu gi am na particularité eh, ndax ren da la ñuy gàmm mhm. waaw bool loolu soo gisee ñaax la rek xam nga taalibe moom comme ni ma la ko waxee communauté dafa laaj communication dafa laaj aussi itam ñi nga xam ni tey dañu yaakaar ni ay porteur de voix lañu seen kàddu am na fu muy dem mhm. day tax ñu ñaax suñu ay moroomu ndaw ñun Sénégal li ñu am amul fenn <coughs> ñun Sénégal li ñu yàlla jox raar na dëkk yu mu ko jox Sénégal ngay dugg ci dëkk fekk ñii doon ay taalibe di Hadji Malick nga dem ci dëkk fekk ñii nekk ay taalibe suñu maam borom Touba ñeneen nekk ay taalibe maam Limaamu Laay ñii nekk taalibe ñeneen ak ñeneen mm-hmm. te loolu dafa am solo ñu bañ ko xeeb mm-hmm. parce que dëkk yi nga gis yëpp ñu am problème ci àddina li leen indil problème mooy ñàkk kilifa ya seeni ndaw ñàkk kilifa mm-hmm. dëkk boo fa demee te amul amoo Seydi Hadji Malick amoo maam Borom Touba amoo maam Baye pour ñu mën a capter ndaw ñi wala capter population bi pour di leen digal ak di leen tere soo ko amul doo mën a am jàmm ñun jàmm ji ñu am ci réew mi ba nga xam ni coup d'état yi xew ci yeneen dëkk yi xew fi mooy ku ci nekk da nga am kilifa. relation bi nga amal euh, média bi surtout la gis nañu tey presse bi dëkk Tivaouane tey surtout tamit ñu wuy si la mooy saa boo wootee euh, ñëpp wuy si la sans étendard. waaw loolu sant yàlla rek xam nga tey moom comme li may faral di wax relation yi mu am ak yéen ñëpp ku ci ne mun naa jaar sa tur xam naa leen relation yi dafa jiitu suñu ay amuñu ay relation professionnel ay relation fraternelle la ñu am ay relation yoo xam ne entre frères la ñu am yéen képp koo xam ne soxla nga ma ci bu ma amee yitte yëpp bu dama mun naa ko bàyyi pour dox sa ay soxla mhm. te yaakaar naa ne tam lii ñuy def man ak yéen ñoo ko bokk mhm. comme ni ma koy faral di waxee lépp lu ci yiw yàlla naa ko bokk ak ñëpp yàlla naa ko bokk ak yéen ay relation yu bien la am ak ñoom presse locale bi fi nekk muy presse Tivaouane tam ay relation yu bien la am ak ñoom di nuyu suma xarit yi ci nekk ñoom Pape musa El Hadj Mbeng ak ñeneen ñi ci nekk ñëpp yéen tam ñi nga xam ne yéen a nekk ay presse mën nañu wax national ou international ngeen dëkk dakaar su ma ay xarit ngeen suma ay nit ngeen su may dem di def lu baax gëm ni li may def lu baax la képp koo xam ne mën nga ci ànd ak man dama la ci woo ndax souvent ni ma koy waxee ñun dañu war a góorgóorlu di wane li ñu baaxle mhm. li ñu baaxle moo ëpp doole fuuf li nga xam ni baaxle wuñ ko mhm. réseaux sociaux yi du pour saaga du pour xastante du pour wane lu bon am na lu baax lu positif loo xam ne mun nañ di ko wane am nañ loo xam ne ay exemple lay doon pour société bi pour jeunesse bi ñu leen koy wan wan leen ay orientation wan leen ni leen kat nekk ndaw du teree am pas-pas nekk ndaw du tere am jom nekk ndaw du tere am volonté nekk ndaw aussi du tere am vision mm-hmm. man souvent loolu lay conseiller ñi nga xam ne seq na ak ñoom wàllu échange ñun jeunesse bi dañu am taxawaay xam ni kat nekk ndaw warta tax nga ñàkk pas-pas pas-pas nag suñ koy wax mooy ci wàllu diine am foo jokk il faut ñun aussi ñu bañ a am benn complex di wane ni ay jullit lañ bu ñu am benn complexe di wane ni ay taalibe tijaan lañ mhm. bu ñu am benn complexe di wane ni ay taalibe murit lañ mhm. ndax li ñu am dafa rafet dafa baax kon man damay wax ndaw yëpp bu kenn am complexe di wane li nga doon te nañu takku liggéey xam ni tout est possible te jeunesse bi bu ñu góor góorloo tuuti kenn mun te defar réew sans la jeunesse mhm. donc li may ñaaxaat rek suma moroomu ndaw yi nañu góorgóorlu liggéey xam ni réew mi kenn mënu ko liggéey sans la jeunesse. Mm-hmm. et que nañu ñun ñëpp ñu am ay activités professionnelles xam ni jamono neexul te réew mi ñun rek ñoo ko mën a defar il ne foo pas ñun ñëpp ñu bàyyi réew mi ak les politiques yaakaar ni ku deful politique mënoo liggéey réew mi ku nekkul ci parti politique mënoo doxal ñun ñëpp ku ci ne ci activité bi nga nekk mën nga fa liggéeyal réew mi yaa xam journaliste nga yaa xam commerçant nga yaa xam importateur yaa xam industriel yaa xam loo mën a doon. mais na ñun ñëpp ànd takku daal pour l' intérêt du du Sénégal man loolu laa gëm te ci loolu laa nekk. Aziz ñu gis relation yi nga am seen. wax dëgg yàlla waxoon naa ko Touba moom laay waxal fii man je peux pas rus naa sax di defal yàlla di ko calculer wax dëgg yàlla ndax suñu borom bu may jox du calculer su ma koy defal di calculer loolu doy di lay bëgg a doon wax dëgg yàlla. Aziz. comme porteur ban message ngeen parce que sëñ Abdou toog na fi ba mu yàgg mu ne nañu taal foto lamp yi di fi hmm. ci nga ut sa kër di da joxe exemple est-ce que jotul nga lancé un ak ñi mel ni yow daw uti kër gëm naa ne sax man tuuti naa sax di di di di di di naan damay servir de modèle wala di joxe ay exemple mais gëm naa ni actuellement taalibe yi mi ngi am une révolution mi ngi am. yu hmm. bari ñi ngi am hmm. beneen gis-gis. ci bëgg taxawal Tiwaawan bëgg vraiment Tivaouane am ay dëkkukaay yoo xam ne bu gan ñi ñëwee ñu am fu ñu dal nekk ci de très bonnes conditions maa ngi ñaax rek waaye matuma ko sax waaye maa ngi jéem di ñaan yàlla képp koo xam ne bëgg nga fi kër wala bëgg nga fi foo xam ne wax dëgg yàlla boo amee ay gan mën leen daal dans de bon bonnes conditions yàlla na la ko yàlla jox. képp ku fi bëgg teraanga aussi yàlla na ko yàlla may incha allah. am équipe jëpp waaw man nag Diop si j'ai des relations fraternelles relation papa ak doom ak xarit laa am ak moom aw ma ak moom ay relation politique donc je suis très dama ndaw tuuti dama ndaw lool ci di ko jox conseil wala di apprécier li muy liggéey ci Tivaouane man ay relation yu bien laa am ak moom suma papa la suma xarit la bu yàgg na boobu nekkagul maire nekkagul dara kon boog maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam yéene bi mu am ci Tivaouane jàmbaar la bëgg na Tivaouane yàlla na ko yàlla may résultat yu positif. jërëjëf gaay jërëjëf jërëjëf gaay